bés bu ñu ko tàmbalee di génne di jaay nu ñuy def te Sénégal wallaahi li fi nekk ci pétrole li fi nekk ci gaz Sénégal mënu ko jeexal fii ak ay téeméeraat lii ba mooy na pétrole am na Sénégal gaz am na Sénégal passé na ñeent fukkiyat at Sénégal am na jama Sénégal am na or Sénégal am na marbre Sénégal am na cuivre Sénégal am na calcaire li ñuy defaree ciment yi Sénégal bu ko neexoon mu def fukki cimenterie fii ak juróom fukki at ciment du jeex bu dul woon gouvernement bi ni mu mel ay taxe ay taxe di defaral seen bopp ak seen njaboot kenn du fanaan ci luwaas ñëpp danañ am kër ah? bu dul woon gouvernement bu Sénégal bu doon suñu kilifa yi ni ñuy dugg ni ñuy luubalee. bu dee kaso la man dama sangoor tëj na ma ñeenti yoon te sangoor tey kenn du ko ziyaar ji yéen a ngi nii toog di ma wër sangoor neen ma ràpp fi ci kaso bu kaw la te du dara mooy li ma doon defendre feetu julli di rek catholique yi am nañu Noël juróom-ñett fan xale di fo catholique yi am nañu Pâques ay quinze jours ñuy def quinzaine national de la jeunesse am nañu Ascension am nañu Pâques am nañu Pentecôte fête des pères fête des mères fête ñun jullit amuñu kasu rajab amuñu woon màggal amuñu woon tamxarit amuñu gàmm amuñu dara lii laa coowoon de sangoor na yóbbu ko ngeen làq ko jant bi waaye foog naa baat bi sangoor mi ngi koy dégg ba léegi mënu ci dara ku ma sant nomm moo ku ma ci xalab lii réalité la bu fi nekk mooy li sa li ko tàmbali Saint-Louis ba Kabiskirine géeju Sénégal yëpp pétrole gaz bi noonu buñ ko delloo ci askan bi kenn fanaan ci néegu ñax benn banque du fi nekk usine ciment yi mënoon nañoo jaay tonne vingt cinq mille francs ciment tonne bi bu nekkee vingt cinq mille francs kan mooy toji jànj di ko def banque réew moo dem danga nga fekk ay ministre am fa ay château te yow ba ngay falus néegu banque sa papa sa yaay ci lañ nekk yow nga falu amoon ñetti at nga tabax ay kër jamaa am na fi or am na fi cuivre am na fi manganèse am na fi même zinc am na Sénégal man li ma jàng mooy cosmographie cosmologie foog nga def géologie boo nekk géologue doo mën a jàng loolu waaye nan la ñu a def li génn fi danaa joxe misaal mooy sara bi bukk defoon xam ngeen bukki léeb la alquran dafa léeb mm-hmm. alquran tudd na yoo alquran tudd na xaj kamasalil himaar yàlla tudd na mbaam ne maa ngi leen di misaalal ci mbaam kamasalil kalbi yàlla misaal na ci xaj ah kamasalil ankabuut yàlla misaal na ci ah jargoñ kon dama leen di jox misaal mooy bukki yaayam dafa dee mu ne dafay saraxe ah? bukki ba yaayam faatoo mu ne daf koy defal sarax mu rëy nag bu rëy waaw nan la ndawal di génne kër bukki xam ngeen li may wax bukki ak ndawal ah sarax boobu dem ba ñu seet ko nañ dem tuuti mu def ko ay saam mu waa dëkk bi yëpp ñëw ñëpp wër ko sëriñ bi tamit toog mu ne ko jàngal Fatiha sëriñ bi bugg a jëriñ mu ne ko foo toog rek boo ko ëffee dana ñëw sëriñ bi toog fële daal di ko ëff mu teg loxom ci benn bii bukki moo ko moom benn saam bi bi mu ne bii saam bukki moo ko moom ñu ne ko waaw mu ne bii sàmb njuur moo ko moom njuur ba tey mooy bukki sàmb mooy sàmba mooy demb kii kon sàmba mooy bàcc mooy sàmba faatu mooy kinne kinne mooy faatu ah mu ne bii bukki moo ko moom bii njuur moo ko moom kon jëlagum na ñaar ah <laughs> ah bii mu ne bii moon moon moo ko moom moon ci séeréer mooy bukki jël na boobu mu ne bii fowru moo ko moom fowru ci pël mooy bukki ba tey mi ngi jël de mu ne bii ku ndeyam dee yaa ko moom mu jël boobu mu ne bii ku njëkk na nga jël sama loxo nga ci kaw waaw jël na yëpp waaw may leen ma tuuti ndeysaan ñoom ñëpp ree nañ wallahi sama xol sedd na wallaay ñëpp kontaan nañu waaw ñëpp kontaan nañu waaw lii moo bëgg a nekk ci réew mi fal nga sa doom fal nga sa rakk fal nga sa doomi bàjjen fay nga sa doomi nijaay sa jabartam na fal ay rakkam na fal ay magam na fal ay doomi bàjjenam ay doomi nijaay kañ ngay fal keneen hmm. ñu ngi koy paacoore xam nañ ne fii du royaume président nga ñaari maanaam nga wàcc balaa may balaa may wàcc naa defar ba sama fukki një fukki sët kon kañ ngay liggéey réew boo demee ci banque yi sénégalais yi ñoo ci ëpp alal kon pétrole safara la alal gu jóge ci safara lan mooy lan moo andi guerre bi Libye ñu ngi bombante rek pétrole bi la de Irak ñu ngi bombante pétrole bi la siri pétrole bi la Yémen pétrole bi la fi pétrole di génne du ñoom kenn yegg fa li bi di métti yëpp ñu ngi sàcc pétrole di ko génne Nigéria ba mu amee pétrole am na problème waaw gisoo Libéria Libéria moo njëkk am indépendance ci Afrique à part mooy ba ñuy def ba ñuy jaay nit ku ñuul yóbbu leen Amérique ba loolu jeexee seen deuxième génération dañu ne ñoom dañuy ñibbi Afrique. ah doom yi dañu ne dañuy ñibbi si Afrique mooy gaal boobu ñu doon dee Black Star ñoom Marcos Gave ne dañuy ñibbi si Afrique ñu tàmbalee ñëw ñu jox leen libéral libéral li muy tekki mooy am nañu ngor nit ku ñuul ñu ngi wàccoo mille huit cent vingt bu ma fàttewul mille huit cent vingt nit ku ñuul ci la ñu coloniser Libéria seen capitale di Monrovia ñu am indépendance mille cent 1837 nag ma vérifier boo paree na nga vérifier 1820 la ñu wàcc foofu la coloniser ko ñoom nit ko ñuul li tuddee ko Libéria am nañu liberté seen capitale di Monrovia ba 1847 ñu am indépendance kenn ëppale leen jama Afrique ñoo ci ëpp jama bu dul Afrique du Sud ñoo ëppale or. ñoo ëppale manganèse waa gisoo ñu kere leen ay guerre ñuy reyante rek ñoom William Topman ñoom William Tolbert ñoom sergent chef Samuel Doe ci lañ ko reyee ñu jox ay fetal Prince Johnson jox ay ay ay ay bomb euh, Charles Taylor ñu reyante di reyante ba Ellen Johnson kooku mi ngi soog a daanu keroog footballkat bi yéeg xam ngeen ko yéen ma ko <laughs> yéen ma xam du ma ko tudd footballkat bi léegi moo fa nekk Sénégal lii lañ ko bëgg a créer yóbbu suñu pétrole bi yépp ñun ñuy xeexoo bu ñu nangu loolu topp nit li muy jëriñ bu dóoree tànkam ci ëkk bu ci dóor sa tànk Sénégal ñun ñoo ko Sénégal yaatuwul cent quatre-vingt-seize mille sept cent vingt-deux kilomètres carrés li yaatuwul ba ñu am indépendance deux cent un mille quelque la waaye bañ jubbantee frontières yi li nekkoon ci gannaaw géej gi bàyyi nañ ko Mauritanie ngir bañ daw coow boori Cap Skirring am na lu ñu dagg bàyyee ko Guinée Bissau ca boori kii Kidira am na lu ñu bàyyee Mali Senghor dafa bëggoon jàmm luy andi coow bàyyi na ko moo tax Sénégal léegi cent quatre-vingt-seize mille sept cent vingt-deux kilomètres carrés la Sénégal réyul am naa tey samay njaboot ñuy sëy ci séeréer yi séeréer yi am na njaboot yuy sëy suñu kër am na bambara yu sëytee ci joolaay am na joolaay yu sëytee ci tukulóor yi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xëñal un peuple yàggale leen un une fois Sénégal lii la benn benn mbir mi lañu bu ñu tubaab yi naxee li ñuy naan fi ak fukki at fii ak ñaar fukki ñu bàyyee ko Sénégal buñ ci tegaatee tuuti mu jeex bu ñu defee seen sondage xam ne lii fii ak fukki at ñu jeex ñu ne la fii ak fukki at ak ñett mu jeex bàyyil ñu ñu exploité ko nangam juróomi at ñu jox la ko nga commencé koo exploité mu jeex fekk jël nañ lépp yow xam nga li fa nekk or bi ñu ngi koy génne senegal xamu ci dara fer baa ngi fii ci boori Fàlleme Guinée moo ñu ëppale alal waaye gine tey ci zaari senegal moo ko ëppale alal géej ju neex yépp gine lay bawoo fleuve senegal mi ngi jóge fële ci Fuuta Jalon jaar Fàlleme ñëw Bakel dem Matam jaar diggante Guiya ak Podor ñëw fële Saint-Louis mille sept cent kilomètres géej gu daw na ko te Sénégal a ngi xiif ba léegi géej gu neex bi lu ko tàmbali Fuuta Jalon ci Guinée ba Saint-Louis euh, mille sept cent kilomètres géej gi daw na ko lu tee ñu def ay tool yi noor jox ko xale yi ñu béy ñii niñ doone ay gendarme ay ñu def beneen corps paramilitaire recruter xale yi ñu dem di liggéey foofu waaye ku dugg armée dix mois ñu bàyyi la xale yépp xam nañ fetal xam nañu nu ñuy géere nga bàyyi leen ci mbedd yi ñu naan ataaya yàlla tere yàlla tere yàlla bu dul ñaanu sëñ Tuuba ñaanu Baay ñaanu alaajama bés bu réew mu yëngu kenn du ko mën a téye mbedd bi yépp ay militaire la dix nga bàyyi ko kooku bés bu fippoo doo ko téye kon àll Sénégal bi nañ ko def ay toolu dër ni bët Sénégal meloon lañuy jënd bitim réew xale yi mën nañ ko béy fii ñu leen di fay saleer waaye déedéet Guinée googu seetal nañ ko yàqee géej gi ñu tuddee fleuve Niger daw na quatre mille deux cent kilomètres géej gi daw na ko dafa ñëw ba Kenya ba mu doon ñaari géej ba fii ba ñu jaar ci loon yi Bafulabe doon benn ñu ñu de ko julli ba moo jaar ko dem Ségou dugg Massina dem Mopti Douanzan Koriansan Ombori dem jaari Tombouctou ñëw Gao traversé Niger jaar ñame dem di sotti delta ci Nigéria quatre mille deux cent kilomètres daw na ko ba léegi Mali ngi xiif Sénégal a ngi xiif Niger mi ngi xiif Nigéria mi ngi xiif africain lan la moo tax suñu der bu ñuul ñu xeeb ñu te aadama dafa ñuuloon Moussa dafa ñuuloon Souleymane dafa ñuuloon ay doomam ñu ngi ne Éthiopie di falashay yahud yi ñuul yi dañoo ñuul li ma lay wax xam naa ko de man maa leen gis bët ba ma ànd ak Cheikh Anta ba maa ngi ko fekk Éthiopie mu ne suba damaa bëgg nga gunge ma ma ne fu ñu jëm Cheikh yal na yàlla yërëm Cheikh Cheikh ngand la ñu jël oto ñu dem ci benn montagne. montagne mi ngi tudd Antoto bu ngeen pare ngeen vérifier ko Antoto mooy montagne bi tiim Addis ba seen capital bi oto bi gaare bañ ne cëb rek rasta maan yépp daw rasta fari rasta elewi rasta sama ñu daw di fóon ay tànkam ne yonant baa ngi nii ma ko cheikh yow kañ nga nekk yonant mu ne ñoo ko wax de comme maa ngi défendre négritude ñoo ne yonant laa de waaye man waxuma ko de mu ne ma fële mooy kër Menelik 2 ni Blaise Diagne nekkee baaru baayu Sénégal bu mujj Menelik 2 noonu la nekkoon bàyyi Éthiopie mu ne fii la defoon këram ma ne ko lu tax mu ne kilifa dafa war a xam dafa war a njëkk a yeewu mujj a tëdd mu xam kii dem nu mu demee kii dikk na la dikkee kilifa dafa war dafa mel war a mel ne arbitre football football dugg nga topp ko xam lii coup franc la lii penalty la lii direct la lii indirect la lii tous la duma <laughs> damay nettali rek yal na yàlla fay leen waaw sër éducateur foog nga xam lu bëri mu ne mel Menelik foofu la defoon ay këram ñun suñu député dootoo mën a dugg seen kër ku nekk ministre dafay changer couleur yi otoom teinte ay veeram changer portable noo koy jotee te yaa ko fal kooku nu mu lay gisee bu la gisee tee rek campagne dafa dikk moom mënelik daawul làqdu mu ne population bi nañ ñëw mu xam lan lañ soxla mu defal leen ko cheikh na ma xam dégg nga li mun a mun a ëllëg dama am yaakaar ci yow nga doon kilifa buy wax ñu lay déglu yal yàlla fay cheikh kon li mu yaakaaroon ci man tàmbali na am mu ne ëllëg maa ngi yaakaar da nga toog ci kanamu mbooloo di leen waxal ma won la menelik lan la wax bu ëllëgee nga jottali ma sama kàddu te moom mi ngi faatu 1986 ba mu fàttewul ah ba faatoo BBC man la njëkk a woo ci jamono ki ñu dem Majid Sarhan Majid Sarhan mu ngi nekkoon BBC booba rajo yu bëriwul mu ne ma loo xam ci savant Sénégal bi kër man maa tontoon ci rajo boobu nekk Angleterre dégg nañ ko mu ne ma seetal stati yi mu ne stati yëpp nit ku ñuul lañ mu ne ko nit ku ñuul moo njëkk am civilisation ca Kilimanjaro ca Kalahari Afrique du Sud ca Firawna mu ne Firawna yëpp dañoo ñuuloon dañoo nax nangu ko mel ni amuñu démb mu ne gisoo estet yi ñaari bët yi dañuy gisante mu ne nit ku ñuul rek la ay bëtam di gisante mu ne gisoo seen tuñ ni mu réyee mu ne nit ku ñuul la tuñam yi tubaab tuñam dafa tuuti te tubaab tuñu kawam dafa jegeñ bakkanam mu ne nit ku ñuul gisoo estet yi mu ne yëpp ñu ñuul la ñu woon mu ne kon lii moo lay wane démb Afrique ñuul la woon yal na yàlla fay ko mu ne ma cey buñ ma bàyyi woon montagne bi ma def ci benn làmp mooy nit Éthiopie Addis Abeba yépp du ñu aajowoo di jënd pétrole arabe yi ma ne ko lu tee nga def ko ci doj yi nekk Dakar mu ne Senghor moo ma ko tere kon ndekk suñuy kilifa dañuy seet seen intérêt bay sacrifier euh, population sengoor dee na te Sénégal dee na moom kii dee na nu mu tudd Cheikh Anta faatu na deful loolu Senghor faatu na te def ko tere woon pour moom nguur am des kon maa ngi jébbaane nitu nguur gi nañu nekk ay homme d'état ba ñu nekk ay om d'état yi xale yi nañ leen dimbale ci ay liggéey nañu fay bourse yi étudiants yi fay bourse enseignants yi ki salaire enseignants yi nañu dimbale docteurs yi nañu dimbale béykat yi ba léegi am na béykat yoo xam ne am na kenn ku ñëw kër mu ne sëñ bi ñaanal ma ñu fay ma sama gerte ndax dama duggoon ci ngoro ngoro gaa ngi bugg a tas awma lu ma joxe fu ñu jëm ni mbéy méttee ah? ay teg première pierre te doo tabax dara naada rien du tout pétrole bi nañ ci bàyyi xel bu dul loolu mun na andi fitna Sénégal li mu am moo gën a bari pétrole or mi ngi fi jamaa mi ngi fi cuivre mi ngi fi calcium mi ngi fi yal na yàlla dégguloo leen kàddu yi yal na yàlla def buur yi yërëm baadoolo yi baadoole yàlla nañu fonk buur yi Sénégal dafa am lu rëy buur daal di fóon loxo sëriñ doo ko gis feneen bu dul fii buur summi dàllam toog ci weti xalifa général Sénégal rek moo ko am kon suñu baax yooyu bu ñu ko yàq ngeen jóge dem fàllu ji ci ñun ngeen dellu si ëllëg ñu bokkaat suñuy ngénte suñuy dëj te fàttaliku leen bàmmeel mi ngi ñëw de boo tëddee ci bunt jàkk taalibi bi nga doon xeeb moo la sang moo la jullee moo lay defal fii daaw sa xarit yëpp ñu ngi jël mouchoir teg seen bakkan ngir liy jóge sa bàmmeel taalibe mooy cippeelu jël la tër la te kooku nga doon tere ne bu mu sa bu mu yalwaan yalwaan mënu fee jóge lu tax ma wax ko mooy senegale bu xëy bëgg naa saraxe bu fi taalibe nekkul nooy saraxe da ngay tiit ci gént gi ne benn gaynde fàdd na la nga dem ci sëriñ naa sa place bi dañ la fa bëgg a jëlee de nga dem jënd juróom-ñaari sondeel ana nga am yàlla jox la yàlla joxu ko gaynde bi ak ko jox waaw <laughs> bu loon gaynde bi mu gént du ko def waaw waaw tax sama lafañ bi moom dafa seen waajur bi maa ngi jéggalu li ma wax mooy mi ngi toog ci puus suusam waa jaa xëy du jomb dafa géntoon ci guddi gi ku li weccet bi mu yore mi ngi koy dugal ci poxataanam yàlla nangam yàlla nangam di ko dugal fu nekk di ci tufli di ko dugal ci gën naa baax ñaan rek yàlla gumba yàlla nangu na ñoo jox am la mu ne ko yàlla joxuma ko de man lii ma àndal doy na ma lafañ bi ma toog ci buus bi doy na ma nga may bëgg a dolli la lii bu ma gumboo teg ci fu ma jëm kon yalwaan mënu fee jóge ministre bi dafay même ministre bi dafay yalwaan xanaa yalwaan déguisé la seen tukki yëpp dañoo yalwaani rek tukki yëpp dañoo yalwaani ay projet projet jàmmal nañu yërëm taalibe dimbale leen kii di wax ak yéen ah, waaw mën na wëlbati kàddu gi def ko français mën na ko def anglais te moo doon yalwaan démb sëñ Tuubaa dafa doon toog teg àlloo ci óomam doomam yu tedd yëpp noonu la ñu doon def Mawlaana Cheikh Ibrahim àlloo la doon teg ci tànk doomam yi lii bu fa jóge rek Sénégal daal di suux tubaab yi ñuy sa nañu sànn yooyu mbootaay tubaab amul doomi bàjjan amul doomu nijaay tubaab amul kii fay la kii juuf la kii jàll la kii bala ñoom bu fitna dikkee day dem te ñun am nañu suñu mbaax yi nañ ko sàmm xale yi di sol ay yu gàtt di tambaambaalu xale yu góor yi di buuse lañ de te buuse bu xoolee xar bi loolu lañ ci yéene dagg baat bi fees ko tojjate ndawal bi buy caaxaan ci yow lay jëm waaye buy soxna ku muuru lay jëli kenn bëggul ko bon booy njaalo kii bàyyi ay cëram ci biti ngay wuti ndax xam nga ne ku bon la waaye boo demee bay takk kii muuru ngay wuti kon bu ñu wanteer seen bopp euh, jigéen paase na loola la yal na yàlla sàmm leen euh, fi may jeexale mooy seen ñaan la yàlla nangu daaw ak daaw jéeg dama bind ay téere xaw na takk tuuti am na benn téere ah, waaw mooy bi ma njëkk bind sama dund mooy bii booba xam na ay fukki at ak nàngam ci lay toll booba amaguma ñaar fukki at ci laa bind téere bi waaye li ci dajaloo ci ay xam-xam dama doon ragal téere bi génn fekk samay doom màggaguñu samay doomu teraanga samay doomu deret ëllëg ñu laaj leen sa papa moo bindoon téere bi li mu wax fi lan la boo ko tontul même bu ma dee gàccewu na te alhamdulilah woy yi ñu fi doon woy yëpp samay doom ak samay rakk ñoo ko woy arab bu set wecc kon bu ma génnoon tey at tey bu ma génnoon àddina yi dana am doon téere yi kenn ko jaay kenn du su ko saraxe dana am ko ko doon jaajëf yow yàlla jàngaloo na ak ñu bëri waa gisuma kenn koo xam ne rek maa ngi koy ñee tey déedéet maa ngi nekk ndaw université yi gën a màgg noonu laa doon toog di def ay conférence yàlla reyuma àll mu animé bi fii ma leen koy jottali encore yàlla may ma xol muñ def naa lu paase fanweeri at feeñul ma lii nangu ma sama jàng nangu ma sama diplôme bu ñu xamoon fi ma jëm du ma yegg bu ma dem du dem ma toog sama ron baay rek di fanaan ci suuf di naan ci teen tey nag bay wee na mbuus moo tax téere bi euh, ñoom Cheikh Ibrahim ñoom Omar ñoom Cheikh Yaqub ñoom ñëpp def nañ seen alal daal di ko wéral baat yi nga xam ne sabku la sabkul lisaan la wala sabkul kalim yëpp lu paase at léegi ñu ngi ci di ko seetaat di ko seetaat ñu yóbbu ko Égypte ba ñu mool téere bi euh, yële kon bato bi mi ngi koy andi yeneen yi euh, am na buñ ci andi bii man lañ ko may incha allah maa ngi ñaan yàlla kilifa ci réew mi yëpp ma may leen ci waaw bëgg naa kenn ku nekk ci taalibe même boo ko mënta jàng na ko wut muy sama kóllëre ak yow bu ma nekkatul àddina tamit. li may wax xam naa ko xam naa mooy àddina gi dara neexatuma ci comme yéen mot ngeen nii euh, lii doy na ma xale yi fi mu nekk ñoom ñëpp seen xol tooy na bu dee seen sago la ñoom ñëpp ñu dagg seeni at jox ma waaye lii la yàlla noonu tàmbali ngeen xam yoon bi bu ma fi nekk ak bu ma nekkul yépp xam ngeen yoon bi li ma bëgg xam ngeen ko li ma bañ xam ngeen ko ngistalu ci dara tey mënoon naa nekk ci gouvernement bi topp ministre yi rek waaye li may am ci sama néeg doy na ma man bés bu nekk sama dépense mooy juróom-ñaar fukki junni trois cent cinquante mille weer bi muy dix mille dix million cinq cent mille président mënu ma ko jox benn weer la ma koy jox ñaareel bi du ma ko jox te maa ngi tey xablul wusul di sama course yàlla mi ma koy jox lii bu ma doyatu lu may doy li may dem ci bureau yi di leen ñaan naa toog ci kër gi def salaatu ala nabi naa ziyaara ji bàyyi ñes ñaan ko naa dem ñaseen lew na ñaan ci barke maam alaaji abdoulaye naa dem tiwaawoon ci bàmmeelu Maodo malik naa dem Dakar siyaare ji seen Nourou Tall li may dem ci buntu gouverneur buntu préfet naa ko wax ci yàlla kon ma am ko te kenn du ma sikk bu fi kenn jóge dem di ŋàññi keneen na ngeen fonk tuuba fonk Medina fonk Ñaseen fonk Kaneen Medina Gunaas jaamal te kenn mënu ko jeexal kenn ku ne fa nga jëlee wird na ko fonk man seen xarit la donte yore naa wird lii jógloowu ma li ma jógloo mooy diinay Muhammad bi nasaraaro yonent bi nekkuloon xaadir yonent bi nekkuloon laayeen yonent bi nekkuloon tijaan anna muhammadan abdu wa rasuluhu ñun ñëpp nañ téye ci banque ormal nitu yàlla yépp ormal tijaani xaadiri sa naqsabandi bu ñuy dem tiwaawan boo mënta dem joxeel addiya bu ñu dem Touba mënoo dem joxal addiya bu ñuy ziyaara ji bàyyi mënoo dem joxal addiya ñoom ñépp seen teraanga dafay del si ci yow incha allah téere bi ngeen ñaan ci yàlla tasaare ko eh, ñeent xaaj la ñaar yi ñoo génn génnagum may déglu bu ceew xewee ma leeral ci ñetteel bi bu coow xewaatee ma leeral ci ñeenteel bi téere yi bëri na li may ragal ma génnee ko dama bañ ma génnee ku ñu bàyyi yenn téere yi te man doom laa ci ñoom ay taalibe laa ci ñoom du benn fànn rek astrologie mi ngi ci cosmologie mi ngi ci cosmographie mi mi ngi ci astronomie mi ngi ci biir science physique chimie science naturelle lettre mi ngi ci poème mi ngi ci dafa mel ni encyclopédie sama photo bi moo nekk ci kaw ni yéen a ñaanoon